mbokk yi internet Yaatal Vision dal leen ak jàmm ci xibaar ñu dikk koy yéen nag ci parti Pastef ginnaaw ak ak tas ñeel nag élection yi nga xamante ne bii moom lañu ñu dëgmal kii di parti bi di Pastef nag dootul amati fii ci biir réew mi loolee ginnaaw gouvernement bi bi mu ko xaatimee nag jëmale ko ca jëmm joojee di Ousmane Sonko daal ne ko ràtt ci kas bi nag tëj ci ndax nag waa Pastef ñoo ñëlee gëm na ne loolee nag dogal buy wéy la wala déet bu nu sukkandikoo nag ca porte-parole bu gouverne ca porte-parole parti boobee di El Malick Ndiaye moom nag dafa daal di weddi lu mel noonee di wax ne kii di Ousmane Sonko kat candidat lay doon ci élection yi nga xamante ne bii moom la ñu dëgmal ci atum 2024 kenn mënu koo tere nag nekk nag candidat ci élection yooyee te it di dalal xel yi nag ñi nga xamante ne bii ñoo féete nag ca wàllu ko politique googee di yeewi askan wi di wax ne nag Ousmane Sonko bu ñu demee nag ci élection yooyee day dal di dóor ki nga xamante ne bii moom la mbërum Benno Bokk Yaakaar wala nag lenn ci opposant yi euh, ca premier tour la leen di gagné du yegg sax ak ñoom deuxième tour wala muy yàgg ak ñoom loole El Malick Ndiaye moom moo xamle lu ni mel jëmale ko ci nag ki nga xamante ne bii ma nga ca kaso ba di Ousmane Sonko nag daal di xàppati ab xiifal bu amut ab yamuwaay moom Ousmane Sonko mi nga xamante ne bii mooy njiitul Pastef Pastef boobee nag lan wax ne daal di nañ koy tas waaye nag ñi nga xamante ne bii ñoo féete nag ca parti boobee gëmul lu ni mel ah, benn yoon.